fépp foo xamante ni fu waaye nekk la si biir caare rek di nga ko jógee dal fii ndax kër gi kat suñu Fallou Mbacke moo joxoon magi caare yi ñu dee leen fi dalal seen i gan kon bu demee ba dal bi dund nii toll fi mu toll dina jar maam ñuy indi ay images yoo xam ne dinañ nga xamante ni ñoo bàyyi moo xam nekk moo première nii Serif ñu ngi lay ziar waaw a ñu jaar baax a baax maam di leen euh, rafetlu seen liggéey ci tey ñu ngi si 17 safar maam li nga xam ne mooy ñaareelu avant ñuy àgg ci bisu 18 safar bi maam tey ñu ngi toll ci wàllum ndékki yi te dañoo indi woon brochette boo xam ne moom lañ préparé woon boole ko euh, yàpp boo xam ne dañ ko lakk maam loolu lan waajalee pour ndekki daal xewal yi ñu ngi nii maam pour moo nekk nii maam lépp dañ koy santé suñu tubaab ndax lii lépp moom la maam ndax euh, daara Nuur daara kenn ku ne xam nañ ab liggéeyam tamit maam euh, di sant mbokki taalibe yi fi nekk maam nangu gi rek maam gaa yëpp a ngi nii si waañ bi maam di ñuy rafetlu seen taxawaay baax a baax ñu ngi taxawlu foofu ba si kanam incha allah. asalaamaaleykum wa di ziar leen jaajëfal wax ni ñoo ngi si waañ bi rek fas yéene xool soxna yi nu ñuy préparé ndekki yi nga xamante ni tey 17 safar bi moom lañ pare ndax ku ne xam na ni ñoom dañuy màggal 16 17 ba 18. yamuñu si 18 bi rek kon ñu ngi taxaw ak benn soxna bu soxna bu soog ñu fas yéene koo laaj rek tey lan la ñuy waajal si ndekki tey soxna bu soog ziar naa la. yàlla nañu yàlla boole yol soxna Aytu. waaw bu soog gis nañ préparation ndekki ak ni mu demee nii lan ngeen préparé pour soxna pour pour ndekki tey ci 17 safar bi. waaw xam nga démb laajoon nañu ci 16 safar ñu def sant sandwich yu baax waajalee ko màggal gi. da ñëw def añ yoo xamante ne yaasa yoo xam ne amul ngoon gi ñu def vermicelle yoo xamante ne maanaam faaleen yeeg njaañeen yi a saalit tey nag ñu xëy ci 17 safar fas yéene la defaral brochette bu ànd ak dibi ak ñoom seen mayonnaise ketchup salade sos soos ak marinade soble dara manqué wu ndekki li daal moom macha allah. kon mbokk taalibe ñu ngi taxawaat ak fii Soxna Ndeye gis nañ la si bu baax a baax yaa ngi fay def liggéey bu am solo foofu tamit loo ñu fa mën a wax mbirum collation yi jëm ci côté boobu noonu. waa lépp rek ci xeetu bernde yi la collation yeeg euh, wàllu cuisine beeg yëpp ci wàllu bernde yi la te noonu la ko sëñ bi bëggee. kon il faut ñuy nekk ci wàllu collation bi di defar ba mu baax di berne ndax lu fi waay defar sa bopp benn yi pare na jox ko jaamu yàlla yi rek moo tax ndax jaamu yàlla yi moo tax gars yi kii nii sonni kon ñu ngi ñaan si bari soo xadim képp bépp ceeb bépp bépp ceeb ku si lekk rek yàlla na doon sa pajug aajo si barki Seexul Xadim